aousubillahi min alsheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin la hawla wala quwata illa billahi alil azim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki julit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooñu jàkkaarloo ak ñun duñu seetaan noo ngi amaat mbégte toogaat ak yéen ci jataay bi nga xam ne dana ciy jiital sant borom bi subhaanahu wa taala feddaliwaat sunu yaakaar ci Seexuna Ahmadul Xadim ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool doole ak wéram waaye beral ak ñaan Serigne Cheikh mbake jëwriñu kër Cheikh Abdoul Khadir yàlla sàmm ko te guddal aw fanam lool. E, ñaanal nag jëwriñam ji di rakam di Serigne Moustapha Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ci jataay bi nga xam ne at mu jot. mu warlool na ko ngir labire ak baaxe jullit yi ak taalibe yi njariñ yi bàyyi ko ci moom ca nekk ci mbindum cheikhuna ahmadul xadim ak i ñu di ko ñaanal yàlla sun borom may ko fan wu gudd lool wa ànd ak wér yaram jàppale ko ci mbooleem luy mébétam ci liggéeyal cheikhul xadim suñu borom bàyyi ko fi ba mu def ko nu kawe njortam Eh, di siyaare bokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ seqal jataay bi ñëpp eh, di eh, jaajëfal itam bokki téléspectateurs yi ak bokki rajo yi ak bokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci internet bi fu ñu mën a nekk jataay bi ñu ngi ko amale fii ci tooram yi nga xam ne moo di jannatul firdawsi <coughs> di daara ji nga xam ne sancoon na ko ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacké di fi liggéeyal yàlla ñu dë ñu dëgbalaat nag bis bu am solo mu di bis bi nga xam ne moom lañuy ñuy fàttaliku ilimaani ilibaan yi doonoon jaamukatub yàlla ba nga xam ne tànkam da koo tegoon ci sariatul mutahara waaye daan wettalikoo nag sunnas Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sëriñ Abdul Xaadir Mbakke feeñoon jamono ci ñetti fan ci aw tamxarit eh, ñu malaat bis boobu mu war a nekk ren ji la août di bis bu am solo nag boo xam ne xam ngeen ne aut sëriñ août Serigne Touba Cheikh Mahamadoul xa woote na bisu xasida fii ci Touba nga xam ne da ngay yendoo bisu xasida bi xëy nag ànd dundal bisub Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir boobu nga xam ne Serigne Touba waxoon na ci waxam ju rëy ja loolu moo tax ñu toog ak sëriñ bi parce que yéene bàyyee kàddu gi mu nuyoo ak bokki taali yi andilaat ñu rek ci ndabi xiiwal yooyu nga xam ne waxtu at mu jot mu dañu ko taajal bu màggalu suñu Abdou Khadir desee wala bu ñu àggee ci weeru koor ñu di ko taatan di ko jariñoo ñaan loolu yàlla na yàgg génn ci moom ñu yàgg koo jariñoo tam am ci ngërëmul sëriñ bi kon sëriñ bi rek ñu wax ko asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi ci kàddu yu gàtt ndax waxtu wi dafa xaw a guddi dañoo bëggoon mu gën a teel ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turu sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo nekk ci bopp kër gi ñu ne muy kër sëñ Abdou Khadir Mbacke di leen nuyu ci ci eh, màggal gi nga xam ne moo jublu si tañ ci jëmmal di ci fàttaliku sëñ Abdou Khadir tam war a doon alxames ji ñu jëm war a tolloog fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm weeru ci weeru eh, eh, tubaab wara a tolloog ñetti fan ci weeru tam xarit wala ñaari fan yi mm-hmm. ñu ci xéwal gu rëy nag ndax day ñëw tasanteeg ak xasida di jiitu ko di ko ubbi mm-hmm. loolu di ndimbal ndax xasida lu mu jiitu rek mooy lu sëñ bi jiitu dëgg la waaw kon suñu ñu béggee ci lool lool lool di sant nag ci yàlla ndax sëriñ Tuubaa moom lum mu xas mayee rek day jëm kanam mm-hmm. te ku xam na ne bis bi muy gane àdduna maye won na ci loo xam ne loola sëñ bi boo ko see rek hmm. sëñ bi laat dara wax naan bi bam ba takkee darajey eh, ñi ñi ma eh, ñi ma ñi ma fekk seen sarsaara di ma siyaarati faaraxu daari ni aw saara nee na da daraje yi da koo takkee foofu waaye tàggootut ak moom <laughs> kat daraje ji da ko waaye ñi am tawféex gis ko njaareem ak fa neen it eh, eh, fekk na eh, martabatu boobaa nga ca moom kon nag noonu la sëñ Tuubaa maye kon nag ren jii nag ak daaw lu ci ne bis bi dafa dikk ci waxtu woo xam ne dafa dajee ki jafe-jafe yoo xam ne dogal na ci ñun dafa dafa dafa dafa dafa dafa andi ay jafe yoo xam ne dogal na ci nun ñu am moom moom jafe-jafe yi dogal na ci nun yu ñu dëkk nan lañ ko mën a waxee ci wolof yu ñu dëkk yoo xam ne dañoo jekk-jekk dëkk ñu sonal ñu waral ci ñun ñu jóg ngir war ko jaamarloo moom te te ngànnaay la ci gën a foor ci loolu jullit mooy ñaan ndax ñaan ci sunna ndax bi mu do dogalee moom jafe-jafe yi bi mu ci nun ay dëkk dëkk yooye dëkk yoo xam ne waral na ci ñun ñu jóg ngir jaamaarloog moom ci ñaan ñaan ga nag ci sunna mooy ñaan nag ci sunna mooy toroxlu ci yàlla ci di ko ñaan ak xaymem li ne fi yàlla ndax mooy weerukaay bépp ku gëlëm ñaan mooy sa weerukaay mooy yaakaari képp ko ragal moom ñaan képp ku dem ba ba yëf yi baj-baji yëngatu mooy sab noflaay boo ñaanee rek sa xel dal ndax nit ku ne ci ñaan lay mën a wéeroo ci yàlla rawatina nag bu mbir yi taree rawatina bu fekkee sabab yëpp dafa dagg foofu lañ toll kon ñu ngi dellu def ndénkaanu sëñ Tuubaa lim ñu digaloon ci ñaan nga xam ne danaa ci indi bayit ci kanam sëñ Tuubaa daf ñoo digal ñuy ñaan te waxañu ñu ne wax wala si muqal ibaadati duhi mooy yuquk jaamu yàlla maanaam mooy li gën a sell ci jaamu yàlla yi bi nga wéetee ak yàlla képp toog ne ko yàlla ndax yow boo nangu nga ne yàlla am na dëgg la nangu ngaa toroxlu ci kanamam te loolu rek la yàlla bëgg moo tax sëñ Tuubaa mooy yuquk jaamu yàlla moo tax ñaan rek moo tax yàlla ne inna lazina yastakbiruna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin ñi nga xam ne dañoo rëy rëylu ngir jaamu ma foofu ñaan la ci jublu ñi nga xam ne dañoo rëylu ne duñ ma ñaan sayadxuluuna jahannama daaxirin mbir mu ñëwee torox ay saaxirina dañ tabbi danañ tabbi sawara te dañuy torox loolu ci wàllug sayir si ci wàllug baatin bi ci wàll lii mooy wàllug baatin bi ci wàllug sayir si nag war nañu aaja woon nañ ñun jamono jëpp maa ngi ko jaarale ci suñ minbar bi may waxee ne aaja woon ñun ñëpp nañ ñu xeex euh, mbas mi mbas mi nga xam ne bu doonu góom ma ne day gën daa yees te wéragul ana nuñ ko mën a xeexee nag ngir bëgg euh, loolu mën a am war nañ ñun ñëpp te daa biiru sixa yi nga xam ne moom la sant ñu góorgóorlu ci bu baax ci xew yi ak ci yulut xew yi muy irtidaayul kimaamaat sol sol ay masque mooy yent yi ma waxoon rek ak sore ci bañ a ak laal yow yi ñuy laal mu xaqimaat yi ci bala ngaa nuyoo ak fonk raxas sa loxo ci bis bi ay yoon yent yooyu bokk na ci ngànnaay ndax loolu zalika xayrun wa ahsanu taawilan buñ boolee loolu mooy gën a baax moo gën a rafet ci nuñ ko mën a taawire ndax sëñ bi dafa wax ne dafa wax ci xasidaam gi ci masaalik ne ngir nga mën a boole sariha ak xaqiqa mhm. xaqiqa mooy ñaan bi mhm. mooy sariha bi te sariha bi dañoo digal ñaan sariha xaqiqa diina ñaan mhm. waaye nag sariha yi nag moo ñu digal nag mm, ba tey wetu wetu pàggutéef bi ñu boole ko ci ndax sëñ nee na yàlla dafa takk sabab ay jëfam da ko jaarale ci ay sabab def sabab muy buntu bu muy jaar di ci jëfe kon bi ñu bi ñu bi ñuy sabablu ci yeeyit yàlla lañ fi wutaat rek. dëgg la moom mi nga xam ne lu ko waaw mi nga xam ne. lu lu mu bëgg ci dara bu ne woon sawara ni ko sëñ waxee ci Mawaahibul Xudus sawara képp du lakk yàllaa ci ànd ne ko lakkal mu soog a lakk ndax bu sawara tapp tapp moom doon lakk lakk hmm. kon Ibrahima ba mu ci duggee dana lakk. <laughs> yàlla koy wax ne ko lakkal diw mu soog a mën a lakk diw waaye jëmmi tàkk-tàkk jooju fii ne du lakk kenn noonu sëñ Tuubaa kooku ko foofu ci ngëm googu lañ ne kon nag ci njëlbeen gi ci mujj gi sax laa waroon wax li waaye comme dama koy firi rek ma ba duñ sori nag te jubluwuñ ci yàlla ñaanal sëñ taxa moom mi nga xam ne moo teg ci jataay bu mag bi nekkal fi sëriñ bi yàlla eh, guddal aw fanam te may ko gu mook ñi mbokkal sëriñ bi ñépp bu ko defee nag ngeen xam ne te àggaleel ko yeneen bu baax te ñu ànd ko moom nag bu ko defee nag jamono jii nga xam ne mooy mbas mi ak yu ne demee li ko teg ci ñoon rek la lépp ñun la ñoo ko teg suñ bopp ndax euh, loo xam loo xam ne dal na leen ci musiba yéen a ko fàggul seen bopp loolu laal xona ndax wa maa asaabakum min musibatin bimaa kasabat aydiikum mm-hmm. te it wa ya'fuu an kasiirin sax maa ngi leen di jéggal lu bari waaye lu ngeen gis ci musiba mu dal leen na leen wër yéen a ko teg yéen ko teg seen bopp saharal fasaadu fil barri wal bahri bimaa kasabat aydin naasi li yusiiqahum ba'da llazii amiloo ndax lan laxalahum yarji'uun maa ngi lu bari ci jéeri ji bu ngeen gisee mu yàqu wala ci géej gi xamal ne yéen a ko yéen a jëf lu tax lool am te dama leen ci mosal tuuti rek ngir bëgg ngeen tuub ngir ma mën leen a jéggal ko defee nag ñu xam ne euh, loole ma fi masiti wax rek yàlla moom fi mu toll ci yetti laaye rek muy walxas lijjanti na ci lépp Mm-hmm. ndax wax nañu jàngoro ji wax ñu li koy faj lii mooy tawat ji lii koy faj bi mm-hmm. <laughs> mu ne wal ba giñ ci jamono waxtu dana lin saana doom aadama yëpp la fi xusri ñu ngi daal di jaaxle mu ne ñii di laaj seetee illal la siina amono ndare ñi nga xam ne amono gëm nañ yàlla gëm wér imaan kon nga xam ne imaan rek moo ñu mën a sowe buñ ko defee ba noppi mu ne waxamilu saalihaati te ñuy jëf lu baax yàlla dafa bëgg dafa dafa lëkkali imaan ak jëf lu baax ba juróom fukki yoon tudd na ko ci alquran yoo xam fu mu ne lëla si na amuna moo tax wala fu ñu naan la si naak amuna waxamilu saalihaati juróom fukki yoon man na ko wata waasaw bil xaqi te ñuy te ñuy dëgg moo tax saa bi duñ daje mukk ba jóg tàggoo te jànguñu man xas bi fi fii ne ñoom ñëpp ku dénk ko sa morom mhm. watawaasaw te ñuy dénkante ba tey bi sabri ci muñ mhm. watawaasaw te ñuy dénkante bil xaq ci dëgg ku di ko dénk sa morom mhm. moo tax Sidna Omar boo ko masaa wax ak dëgg rek moom boobu mooy amirul mu'minin na day xam maa ngi sant yàlla moom mi ma booleeg ñoo xam ne boo naree juum ñu ma li fee yoon wa kon yàlla ci wenn ñetti aaye li jànkati euh, borom xam-xam yu bees yeeg yu njëkk yaag yépp li ñuy wët mooy ana jàngoro ji ak ak ana garab gi koy faj yàlla andi ci ñetti laay loolu kon sun boroom moom dong ko man moom mi ñu bind ndax gëm yàlla ndax loolu boo ko boolee gëm yàlla ak jëf lu baax ak dénkaane ci muñ ak dénkaane ci dëgg mooy loolu mm-hmm. ndax gëm yàlla moo mel ne mooy garab gi mooy garab gu naat gi gu soqi gi waaye nag daa aaje woo taxtaaju ila riyin wa qidaain mawsulin daa aaje waxtu la ñu ko suuxat ndax mu mën di màgg waaw ana koy suuxat nag mooy alxamalu saalih jëf ju baax moo tax mu ne waa amilu saalihaat gi gëm gëmit daa aaje di dëgëral ak di ko eh, feddali waxtu ne looloo waral mu ne wattawaasaw bil xaq ngeen dénkante ji dëgg ndax yaxtaajul imaanu ila tathbitin wa taakidin moo tax tawaasi bil xaqi moo ko mooy wa tawaasaw bi sabri moom mooy sëngis sëngis garab gi garab gone day aajee nga nga ko dara waaw loolu nag mooy sabru muñ moo tax mu bëgg ko ko julit bu ne ñu ñuy dénkante muñ ndax wallahu ma saabirina yàlla mu ñi muñ ko ku muñ rek yàlla na la woon ne ànd nga yàlla kon loolu mooy jàngoro ji garab gi mi ngi nii sàll yàlla saafara saa ngi nii suñu borom won nañ ko ci ci ñetti laay képp te yii ñu dal yëpp yu tuuti ak yu néew yi lu bari li ak lu tu xeebu la lépp mi ngi juddoo ci ñàkk jëfandikoo laay laay ñetti laay yooyu rek waaw te lañ ci mën a musalit mooy delluwaat ci laay woo yooyu rek kon nag na ngeen xam ne lii nga xam ne moom lañ baaxoo di def rek moo ñu sonal nu haalu ana waykat bu ko waxoon nu haalu lil amri la si yaroona wa nartaxi fi gaflatin idan qada bu dañuy tiit ngir bu mbir mu mel ne mii am muy waba ul alami bi bu ñëwee rek ñëpp tiit waaye bu bu bu bu ko saa borom jeexalee rek ñëpp delluwaat ci càggante Oh. nee na nee na borom xam-xam loo tax nee ñoo ñoo xaw a mel ni jur. Mm. buñ déggee gaynde gu sab rek. Mm. ñëpp daal gaaw daw. buñ ne gaynde gi demaan ñu daal di waat ca ca ca newoon di faraat nañ àll bañ doon bañ leen doon aaye. Oh, nag te sëñ nag nee na euh, kenn ku ne sam xel moom moom nga war a def mu jiitu di wamat sa bànneex. Mm-hmm. Mm-hmm. boo ko defee rek neen da nga mucc wa xaq a kacc xal xaaidal hawa wala mm-hmm. tax kis fa tax wi xadabal mawla wala mm-hmm. kenn ku ne na nga def sam xel muy wommat sa bànneex wala tax kis waaye bul safaan mbir mi mooy fab sa bànneex muy wommat sam xel ndax bu boobaa ci kàmb la a jëmee dëgg la afarayta man ittaxada ilaahu hawaahu wa adallahu wa adallahu allahu waxatama ala samihi wa qalbi wa jaala ala basarihi qishaawa fa man yahdihi min baadillah <laughs> loolu la su loolu sëñ bi moom ay waxam lépp alxuraan la firi kon fokk dañuy delluwaat ci loolu ñu sëñ bi wax ndax am na beneen waykat bu ne wa aafatul xaqlil hawa wa aafatul aqlil hawa fa man ala ala hawaahu aqluhu faxat hmm. gàkk-gàkkub xel mooy bànneex hmm. ku fexe ba sa xel kawe eh, sa bànneex di ko jiite neen na mucc na wax waxtaan woo xam ne fekke nga ko ñu ci def ci yàlla it ak man a jamono ni muy doxe nga xam ne la baaxoon sëñ bi daa wax ne la baaxoon rek gis eh, na sëñ Basiir mos ko li ba li baaxoon rek ci ba yonent bi ñëwee ba tey hmm. li baaxoon rek ak ak yonent yi ko jiitu hmm. la yàlla ne woon moo baax rek ba tey mooy baax lam ne woon baaxutit ba tey mooy bon <laughs> ci loolu ngay xamee ne yàlla yàlla kenn la yàlla kenn la dama baaxaloon démb rek a baax tey moo baax ba tey bu yaa bu yaari yàlla amoon kon kon beneen bi kon beneen bi soppi na lañ doon wax ba tey ndax ndax kon la ñu baaxoon mooy bu ñëwee lam ne woon moo baax nga nga nga indi si waxam ne loolu la lu seet naa ko waaye nañ yàlla ji yàlla ji day kenn hmm. kon nag kon nag jamono kum wóorut man lam yaidhu dahru lam yanfauma raaxa bihil waaidu yowman man gadan képp koo xam ne jamono mënu laa waar bu nit toogoon suba ngoon di la waare du la jëriñ dara jamono rek war nga see jànge xam fi nga war a jaar ak ni nga fi war a jaare ak fi nga wërta jaar ak li nga war a xool ak li nga wërta xool jamono képp doy na la ci ab ab ab jàngalekat ab ustaas waaw man lam tufithu ibaran ayyaamuhu kaana alxamaa awlaa bihi min alhuda koo xamee ne si sa bis yi yi nga jaar ci àdduna jëriñu la kon silmaxa moo gënoon a yow ci yey ci yow ci mhm. Mhm. ndax li nga fi fekkee daal li ak taarix yi ñu lay nettali nga di ko dégg bu fekkee yow loolu mënulaa jëriñ dara kon yow euh, li alxuraan naan euh, ay gis euh, ab xol du gumba mhm. laa taxmil absar waakin taxmil taxmil xoloowu dal kon nañuy jàngat bu baax ci ni jamono mel te dénkaane bii ñu sëñ bi dénk ñun ñi di aju ci moom ñu jàngat ko bu baax am na fu mu wax ne yaa mutaalliqoona koonoo muminin wa muslimina taxatan wa muhsinin yéen ñi aju ci man ñëpp dénk naa leen ngeen nekk moomin muslim muhsin neen boole yooyu waajaatukum bi haasihi nasiha faltaqbalu faltaqbaluha waqra'ul fasiha yéen ñëpp nag dénkaane bii maa ngi leen koy dénk na ko nangu bu baax a baax a baax mumtasiliina kullama bihi amar rabbukum si hadaakum muhammad seen sun borom mi nga xam ne moo moo leen eh, bëgg naa leen yéen ñëpp ngeen di wéy ci ndigal sun borom ndax loolu moo ñu lii mu ñu wax buñ ci jaaree rek tànk-tànk jamono yëpp danañ ci mucc jafe-jafe yëpp danañ ci mucc nee nañ jóg di topp ndigalul yàlla ijtani boo jumlatama xanhu naha rabbukum la si hada sawinnoha ni ngeen teet mboolem li nga xam ne sun borom moo ko tere moom mi nga xam ne moo jubal ñi amee xel inna fi zalika laayatin loolu borom xel yi moom yàlla da leen bëgg da leen da leen a gindi mm-hmm. mm. ndax mooy tax ñuy teel a xam fi ñuy jaar lakum talabtu minhu xufraanan yadum tooboo mahan li rabbina albaaxil xadim maa ngi leen di sàkkul yéen ñëpp na njëggalug yàlla cey sëñ Tuubaa moo ñu bëgg a dimbale wallaahi yéen nag digal naa leen rek dee leen tuub tuub dee mooy di dellu ci yàlla yàlla boo ko tuubalee rek mu jéggal la xudul xalaala watrukul xaraama wal tatluboo bil warahil na ngeen di sàkk lu lew te bàyyi lu araam jiima wut ci sàmm seen càkkutéef seen diggante ak suñu borom. waram <laughs> na ngeen di fexe ba li ngeen di wut lépp ngeen koy wut ci sàmm. sàmm nag mooy loo wërta laal loo ne doog a laal. man akalal xalaala ardar rabba amal xaraamu fa huwa yurdi la xibba ku lekk lu lew yaa ngi yaa ngi gërëm loo yàlla waaye ku lekk lu araam yaa ngi gërëm loo iblis warkat ba <laughs> amal xaraamu fahuwa yurdil qibba man akalal xalaala arda rabba amal xaraamu fo yurdil qibba mooy waaw mooy loolu kon nag yéen ñin ñëpp yaa ayyuhal hibaadu roomo bi tuxaa karama baaxin jaasibin bil irtixa yéen ñëpp dee leen sàkku ci ragal yàlla tedd ngeen sunu ko sàkku ci ragal safi safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa na lan yuqbala képp koo xam ne yaa ngi bëgg àjjana te doon jaamu yàlla ya ko dese nga yéen ñi nga xam ne jotu leen a jàngit na ngeen fexe ba xam seen farata yi xaynu yaa ayyuhal juhaalu fal tahallamoo faraid al ahyaani wal tastaslimoo na ndax li sëñ Musaa Ka wax man ko xamut laajul ko xam xamoo leen fasalu ahla dikri in kuntum laa taalamuun am na borom xam-xam sëñ Abdou Khadre daa nett la dara wax man di jàngum waaye waaye gede soriwut suñ bàkki bu saa ngi fi lu ma jaaxal rek ma dem laaji ko loolu yomb na wax na dëgg wax na wax na dëgg wax na dëgg de ku bëgg sariya wala jànguma de waaye gede soriwut dëgg la incha allah lu ma jaaxal ci diine rek ma dem ñu suñu bàkki bu saa ngi jëfe rek mel na ku jàng jëfe ah mi ah, kon nag li ci am solo nañ dellu ci ñaan mm-hmm. nañ dellu ci njàngalem sëñ tubaa oh. ndax sëñ suba sëñ tubaa kat nee na ñaan waxuma la waroon ba am si ittee rek di ko def min hu nee na min di yeeti nay li boo di yeeti nay idhaari faqrin wa tanaajin yaa oqay tasabbubika lil ataayi xaw fattihaami rabbikal mi ataayi oh. seetal loolu nee na bokk na ci teggini ñaan ngay ñaan rek li wóodi yitin ngir feeñal sa njaamu ci yàlla mhm. ne man mi as njaamul yàlla la boo xam ne dama bëgg a feeñal sama njaam ci yàlla rek moo tax ma tàllal sama loxo di ñaan yàlla ne ko di ne ko aaja naa la mhm. feeñal ko it damaa bëgg a mhm. ngay bi ñaan yaa ngi dayaaleeg yàlla waaye doona tasabbu bi ka lil oh. nga xam ne bi ngay ñaan eh, yàlla jox la sax taxut nga di ko ñaan ndax kaw xaw fattihaami rabbik ngir ragal tuumal sa borom ndax da ngay bañ dañuy bañ bu fekkee itti ji rek moo la tax di ñaan buñ la joxoon nga tàmbali sikk loolu Sëñ Tuubaa dangaa war rek di toog rek di toroxlu ngir yàlla di ñaan ngir feeñal ko sak aajo woo suñ borom ak sëg deyaale boo ko defee nag ngeen xam ne bisub Sëñ Abdul Xaadir bii ñuy waji ñëw bis la boo xam ne mënees na cee jariñoo bu baax niñ mën a jariñoo ci mbooleem ay kemam ak mbooleem ñi sëñ bi defar ndax moom mii nga xam ne moom lañuy jàngat ci bisam loo fàttaliku ci ay jikkoom mën na laa jëriñ tey mën na laa jëriñ dëgg ndax buñ dee wax ko sàmm ci minal awran yi na moom daa bokk ñi gën a sàmm dëgg la bu dee ci eh, istiqaamatu ku ne xam ne ne ci loolu rek la nekkoon bu dee ci rafet jikko ku ne xamen na ne ci lool rek la nekkoon te rafet jikko googu nga rek sëñ Tuubaa dañu koo digal digal ñu ne dama bëgg yéen ñépp ngeen fonk rafet jikko te di ko dundal ku ngeen am ku ngeen gis ngeen ngeen ngeen ngeen rafet ji ngeen rafetal seen jikko ci moom mm-hmm. bi rifqi wal ihsaani di def ndànk sa digganteeg moom di ko rafetal wa siyaanati sadrin ak ñoŋal sa xol ba doo ko ëmbal dara lu bon loolu laa digal taalibe bi yëpp mooy rafetal nga rafet ngeen rafetal seen jikko jépp maan xibaadin baatinan te nag ngëbu ci ngëbu ngëbu ci sa sab xol ci sa baatin ci nit ki nga xam ne doo tuumaal ndax ndax lu manqué ci sa diggante gi moom rek da naan yàllaa ko dogal waaye du ci moom te nee na bo fa boo boo defee nii ma lay wax boo hmm. bu boo ndax nee na daanaka lu yàlla lu mu la defal ci adduna rek xekk ma too ci ne hmm. ndax fii ne bu fekkee nit ñi dañoo mel ne lu lay loraka di la xeex sax hmm. yàlla la bëgg ndax fa fi asaahumoo li rabbika tamil buñ la dee lor rek nga da ngay daal di jéng jëm ci suñu borom daal delluwaat ci yoonam fatil ka nixmatun suñ tubaa nee na te loolu xéewal la ci yow kon amul fenn fu metti nee na déedéet déedéet <laughs> loolu la ñu suñ loolu nag moom mii mën sa ko jàng ci moom ndax dadaa wax naan nit ku ne la la war ci moom la la war ci moom dee ko defal te la ko war ci yow bu ko xalaat suñu doxee daana la ko war ci moom bàyyi ko bàyyi koog la ko war ci moom te bu ko xalaati te war ci moom waxtu wane de ko def kon loolu la doon jàngale ci jikko yi noonu la doon jokkeeg bokk xam na li ne ci jokkuk bokk xam ne li nekk ci rafetuk bokk xam na ci fum mu déggi na fu ma déggee lu fu ma fu fu nit gisee lu baax fàttali ma ko rek maa ngi mel ne ku doon bay ci sama tool nga ne ak ñaxa nga ne la digg naa ko ci moom ci laa mi ñoom ba tey léegi nag kon loolu lépp buñ ko dee wax dañoo bëgg ku ñuy wax ci màggal ci waa kër Sëñ Tuubaa ñi loo ci tudd ci ay jikkoom rek da bëgg ni lu ci nit roy rek mu jariñ la ndax boo leen boolee rek dañuy daal nekk sëñ bi wallaahi ndax ku ci ne lan na ci yow bañ koy yéem sëñ bee ko ci def dëgg la te ba noppi di sëñ bi rek wallaahi <laughs> eh, kon nag eh, nañ fàttaliku ci bisam bi mhm. xol bu baax bi amoon xal mhm. bun salimun bi mhm. te bis bee ñu jëm kat dara amu fa njëriñ lu wees xal bun salimun mooy xal boo xam ne yéene kenn lu bon doo ko fexeel kenn lu bon bëggoo kenn ku la nettali ci kenn ab safaan daana wax ne moom mii man de euh, su ma soyoon de ko xam ci nit ayib it boo nga bañ ma ko wax a ma gënal. ndax boo ko waxee du tax ma jàpp ko. waaye bañoon ma ko waxee de moo gën ci yow moo gën ci moo ma gënal. yow ma laa yanfahu maalun wala banoona illaa man atallah bi xalbin salimin yàlla neen alquran alaxira bu ñu fa demee alal du fa jëriñ dara ak njaboot du fa ñëw ci yàlla indi xalbun salim kon moom mii boo ko dee fàttaliku. mën nga caa jàngate loolu. ndax xalbun salimun mooy lépp. ndax sëñ Tuubaa da daa wax naan yàqaakoon bi di iblis di. bu yër boo xamee ne si yër na xolum nit. day xool ba xam kiñaana nga ca walla réye nga ca wala ay kem kem yooyu nga ci ñu loolu ñu tudd arsailul xalbiya mm-hmm. nee na bu taxawee ci bunt bi bu xoolee xool gisu ci yooyu mu ne fii fii de ab dal gisuma fi bu dal bu nee bu ci séenee dara nee na day mel ne xaj bu gis ndawal num num nu mu demee ba ba dëkk fa rek lay daal di wut bu fekkee loolu rek nee na ah fekk na fa ndawal <laughs> ah xaj xaj nag boo gisee bu taxawee ci bunt ba gis ndawal kenn mëntu kenn mënu ko tàqali kenn mënu ko tee dugg ku baax ki moo ko jàngalee noonu kon nag eh, yàlla nu yàlla dimbale bañ roy moom noonu mu fokke woon fonke woon ay bokkam nga xam ne ku ci ne wutal na la waxtu woo xam ne bu jotee mu seeti la ñi ñi sëñ defar yow moom fa nga dëkk xam nga ci dara Daaru Salaam at mu jot waxtu na waxtu boo xam ne bu jotee dana ñëw seet si leen la ko defee ci eh, taali sëñ yëpp te te loolu lépp lim ci doon jublu rek ñoom ñëpp ku ci ne la ngay def dàkk bëgg sëñ bi dong nga ci jublu wallaahi waaw ak ak fu sëñ bi def dara lam fa def neex leen mhm. te ñu bëgg mu yokk ndax sëñ bi lañ ci gis loolu mooy seen jikko mhm. mooy jikko moom miit dëgg kon nag yàlla nu yàlla taas seen barke amiin euh, may ñu ni sëñ Touba bëgg ab taalibe mel ni rek ñu mel ni te yàlla xéewi ñu mhm. waxtu wu ne suñu bëgg sëñ Touba ak suñ ko suñu doyloo ko di yokk te sëñ Tuubaa di ñu ko suuxatal ba fu mu bëgg àgg fu bëgg moom suñ bi mu àgg fa mu àgg fa te lu ci mën a doon rek nañu defal suñu bëgg ci moom di yokk moom <laughs> waaw ko defee nag ñu ngi leen di sant di ñaanit ci dara jaam rek mu mu dolli ñoo dimbali rek ndax lii ñuy wax lépp mm, ni ko sariya waxee lañ koy waxee rek waaye moom lañ yaakaar ci lépp. dëgg la ah, ah, ah. dañuy jaar ci mbindam rek di di jàng di jàngal nit ñi. ci lim wax. tal ta tal bëgg ñu lay jariñal waaye nag teewul nag la ko xaadima jaxate waxoon xam nañ ne moom moo jubóog yàlla. dëgg la wallaahi jaxate bi biñ koy bëgg a bi bi mu kee sëñ bi. jékkeetuma fenn te te war nga war nga cee te bu ma jox benn tegtal nag. Hmm? ndax tegtal yi ñuy wax kat yëpp xam naa ko. bu ma wax ni benn baat rek laa soxla nga ne nga ne demal jekki dara dutu xew. ñu ne ko demal jekki dara dutu xew. moom nee <laughs> ma wax nag naan defal ma nangam ak yooyu yëpp ci té. bul ma <laughs> baat bii rek laa bëgg nga wax ko ci lamiñ rek <laughs> fii la ko waxee woon ci Tuubaa eh. te it loolu ko toxal Sëriñ Saliou Mbacké ñi ngi ñaani nag wala ñoo jeexal ci at mu bees mi yàlla defal ñu ko muy atum jàmm defal ko réew mépp defal ko julin ñëpp na gën a wattu eh, tariqatul muridiyya yàlla ko sa borom gën a wattu Euh, ndax sëñ bi kat damaa gis muy ñaanal madina waxtu wane naan ko yàlla gën a wattu kon nag ñu ne suñ tariqa tariqatul muridiyya ko yàlla gën a wattu ba ba ñu sëñ bi fàggol ak lim ñu yéene lépp dara bañ ñu ko yàqal ba ndax lu ma ta fàggu fàgg na ko sëñ Abdou Khadir daana ko wax de mm-hmm. bi fàgg na ko waaw kon nag yàlla nañu yàlla dimbali mm-hmm. defal ñu atum jàmm mm-hmm. defal ko julin ñëpp mbas meeg yëpp ñaan ku baax ki ñu ci te musal ñu ci nag waaw ba noppi nag dimbali ci ba jeex fépp ci barkeb sëñ Tuubaa dara ji liggéeyam bu sell bi dara ji xasidaam yi dara ji alxuraan ji nga xam ne liggéeyal na ko liggéey boo xam ne kenn musu ko koo liggéeyal dara ji lim xam ne liggéeyal na ko liggéey boo laa saaniya laha min alxidami te it lay sat faaniya cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Abdoul Khadir eh, yaakaar naa ne nopp yi dalawaat nañ bind bu bees peq waaye nag xol yit tooyaat nañ jàjjiwaat nga it eh, xel yi ci delloowaat leen ci seen borom ci ab jullit bu tiitee dafa war a fexe ba diggam ak boromam dara du fi dox te yaakaar naa ne àdduna bépp tiit nañ réew mépp tiit nañ waaye delloo si waat nga leen nag ci sunu borom subhanahu wa taala wan nga leen it ne ndakate natt bu wàcc ci ab jullit rek nañ xoolaat seen bopp luñ def ba yàlla xàjj leen na leen wàcc ngeen yoon wi del si waat leen ci alhamdulilahi rabil alamin yàlla na yàlla nangu ñaan yi nga xam ne ñaan nga ko ci barkeb sang bu tedd bi nga xam ne moom la waajal bisam eh, bis bi noonu ko sëriñ bi santaane woon te sëriñ Mouhamadul Moustapha soññee woon ko di bis bi moom ki ne ci biir réew mi ak ki nekk bitim réew ñoo ci yem ñaan rek la ñuy doon te yàlla mii maye daj mi ngi fépp te sëñ tubaay yi kenn ku ci nekk boo ko wooy rek boo gestoo gis ko ci sa kon nag noonu ko sëriñ bi waxee woon ñu nekk bitim réew bu ñu àggee ci bis bi nag ñëpp xam ne tey jile la bisub sëñ Abdul Xaadir kër sëriñ Tuubaa yi jumaa yi jàkka yi fu ci mën a doon rek la onze daal na ñëpp yendoo jàng xasida yi sëriñ Tuubaa yi waaye la douze na ñëpp yendoo tàllal loxo Cheikh Abdul Xaadir moom mi nga xam ne juboo woon naag boromam mu dox suñu digganteek mbas mi ni ko sëñ Muntaxa bëggee doon ko ni waxee kon bis baa ngi noonu la douze lay doon dañuy yendoo jàng xasida yi Serigne Touba yi la onze bët sidd le douze di bis bi nga xam ne Serigne Touba noon na woon maam Thierno bi ngay dem ba ba ngay del si koo fi dajal ñu jéggal la ko te dégg ngeen ni ko Serigne bi waxee nee na ñaanuk Serigne Touba moom waxtu woo muy tapp garaat ba lay wax waaye dutu tàggu garaat booba kon nag booba dunay tukki saa yu ñu fàttali ko bésu Cheikh Abdoul Khadir njéggalu yàlla mën a wala di wàcc ci jaam yi te kenn nattable ne bu yàlla jéggalee jaam ñi rek yërmandeem daal di tàbbiku yàlla ñu yàlla defalum njéggal ak yërmande yàlla barakatu Cheikhuna Ahmadul Khadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nañu ma wool ceerno mu ñëw ma wax ko lool xew fenn fu dul fii ceerno ñëw lii la ko yónni daal ñaan danaa la yónni nga tudd gan gi